الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن كتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية وتوفيق من شاء نعمة منه فضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مجتمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبد رسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين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 alhamdulillahi kasiran amri ala kulli xaali moo ñu ngi sant yàlla sant bu amul aba amul dayo waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaabaami ak képp ko am yaa ngi toppe sunnaam bi ba ilaa yawmil qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla boole si ñooñu wa yàlla ñu xëy jaama inde ko fanaanoo ko yàlla mi jaamal yàlla ñu defal jaama yokk ñu wér ñi feebar nekk ci nekk ci lopitaan waaye fu waaye nekk di jamar yàlla mi safara yàlla yàlla ikati yàlla yàlla may wér yàlla yàlla subhanahu wa taala foko sa bop yàlla yàlla boole may aafiya yàlla yàlla may aafiya yàlla yàlla may aafiya may ko boole doomi adama si kaw suuf waaye jitu allah àllaaxira yàlla yaram len yàlla yatal sen bamel yàlla subhanahu wa taala leeral seen bamel yàlla yalla def sen bamel yi mo nekk rawdatu min riyadil janna way njabot bi yàlla sàmm leen aar leen laxa leen fu yaa eggutu leen si mustaqim yàlla mu ci len ci fitna musiba bala shaytan warsagalen leen xam-xam warsagal leen liggéey warsagal leen àndandoor yu baax waaye jigéen ñi tamit yàlla sàmm leen aar leen yàlla boole ñu defal ñu xéewa adina àddina xéewali àllaaxira muccañ safara mbokk yu amin ñu waay fii si daaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat mbokk bi léegi mbokk jullit yi ñuy waxtaane li nga xam ne mooy bu rafet nga xam ne dañ ko war di ñaan waxtu bu nekk mbokk jullit yi yàlla subhaana taala mu ne miskun wa fi dalika fali tanafasin mutanafisuun maanaam njeexteel ba daal mu ngi mel leskolonium wala papium e eh, misk si neexaay bon nag aci la ñu jëkkalante si yu baax yi mbokk jullit yi ndik lan di jékka jëkkalante si lu baax ba dee fekkala si loolu mooy mujj bu rafet bokk na si mujj bu rafet mbokk jullit yi an tamuuta wa anta bariun min an nifaaq mooy nit ki nga góorgóorlu bi boy génn àdduna nga set wëcc si naafiqa naafiqa yaa lu bon a ngi nii lu garaaw ngi nii te bari lool suñ biir wallahi naafeex yaa bari mu nekk jikko boo xam ne yàlla bu ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko waaye nit ñu baax yi bëgguñ ko te yàlla subhaana taala ba mu jagleel naafeex yi safara bu dee ne safara am na kéem dañoo ne naafeex ya ñooy nekk ñooy safara ba ndax yàlla ne innal munaafiqiina fii dark darak asfali min annaar maanaam sa darba darba fa fa safara ba em sa darba xam nga ku fa nekk fa éega mbokk julli li la féetoo kaw yëpp nekk safara yow nga dem ba biir a biir a biir nga xam ne gisatuloo dara loolu safara ñu ne foofu mooy dëkkuwaay naafixa yàlla yàlla mosal si naafixa bon nekk na jikko boo xam ne nit ki war naa mën a góorgóorlu ba moytu na ko jikko bu bon boobu xam ne mooy naafixa yéen bi sa sala mu ne ayatul bokk na si mandarga yi naafiqa yonent bi salaam mu ne ñetti mandarga la beneen bi moo waan iza sa kazab saa bu mu waxee rek wax naka su du noonu ba dem na nga xam ne sax buy ñëw sax ñu ne he noppi leen di wax ngeen ñëw déglu li moo wax kii du wax dëgg nekkul wax kat yi dëgg bu mu waxee rek mu ngi wax safaan ba ñàkk wax dëgg waaye tamit li si gën a garaaw mooy ne wa tumina xaan nit ñu óolu ko tànn ko jiital ko fal ko macha allah mu or leen mu or leen lam diggee woon yëpp dara defu ko si waaye nag bu ñëwee pour di ko wax dëgg sax mu jàpp ko xuloo mer mer mer di wax di saaga di doore di jaay doole bon jàngoro bii di naafeq mbokku jullit yi nit ki war naa mun a sital xolam balaa mu gën a àdduna naafeqa mooy misaal bi lan mooy naafeqa mooy ki nga xam ne li ak li moo wane du benn nga gis ko xam ne bu gisee wala bu ñëwee si yow di waxtaan macha allah waxtaan waxtaan yu nee ne ah, kii mooy suma ji waaye bu demee si piti di la yaxaa foofu diw de lam waxoon diw de lam defoon diw de nangam nangam di la yaxaa foofu te bu dee yeeyoo rek melutu moom subhanallah yàlla subhana taala mu ne ida laquukum qaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustaziun allahu yastazi bihim wa yamuduhum fi toxyaanim yaxmahuun si suratul baqara bu ñëwee si yow ne ah ñoo yoo ànd de ñoo yoo far de ne naa fi xëy loo tax yonent bi aleyhi dundaa bi Madina mu metti woon dafa metti woon dundee Maaka ñëpp xam ne metti na ba gàddaayi Maaka ñëw Madina waaye Maaka dañ feeñal dañ feeñaloon seen kufr maanaam seen yéefar yaa dañ feeñal yonent bi ñun dañ la weddi nëbbuñ ko waaye Madina ñu ñëw di wane ne ñoom dañ ànd ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi ay naafiqa lañ luñ jëlee si yonent bi sallallahu alayhi rek yóbbu ko si noonu islam yi te yàlla ne idaa laquukum qaalu amanna yes buñ dajee yonent bi sallallahu ak saaba yi ah ñu ne gom nañ de waaw yow lañ àndal sallallahu alayhi wasallam waaye nag buñ delluwaat si seen shayaat yi nii mu commencé ne ah, ñu koy dañ leen doon fuuxal rek ñu fuuxal rek waaw loolu nag dafa mel dundun boobu doon am si Madina naa naafexa yooyu dafa mel ni moo bari suñ jamono ji léegi moo ñëwaat suñ jamono léegi léegi suñu bari nit ki ngay ànd ak moom wala ngi naa lii nii waaye boo joxee gannaaw rek subhanallah loo fasante woon ak moom mu demee rek waxi ko waaye su la gisee rek bu laa for woona man rek bu bon a bokk ci lu war dañ ko moytu de te wax nañ misaal bi yéen yàlla subhaana taala di wax fan mooy dëkkuwaay naafixa mooy safara sa biir a biir a biir a biir ba mu gën a xootee boobu mooy dëkkuwaayam yàlla yàlla musal si safara yàlla yàlla musal si safara yàlla yàlla musal si safara safara mu ne ku si ñetti yoon safara si boppam mu ne yàlla mucalal diw si safara bu nag boo yow ki nga xam ne lii sa jikko la bàyyi ko tuubal jégalul yàlla jégal la loolu tax mu ne bokk na si mujj bu rafet ni kii gën a àdduna fekk amu ben jikko bu bon façon jikko bi mu anda ak moom muy jikko nafiha ndik su de nifaq mom koku mom yalla wax na fu mo dem ba pare ku de xam naa si si naafixa si nafiha ya ku ci de rek yalla wax na fi ngay dem ndik yalla mu inal munafiqin bayu ken muy ko gor muy ko jigen bon mbok jullit yi li may ya wax sa kanam suma ma jëlee su la joxee gannaaw na wax lolu lu baax li ma wax si yow si baax sa kanam suma la su ma nga wax nak si nonu boobu jukon naafixa la waaw jukon naafixa la waaw ni ki rek na tu bala ge ge génne aduna bon yalla ñu subhanahu wa taala def ay julu dega dega wa yalla ñu subhanahu wa taala musal si janguro bi nga xamene moy nifaq moy nafiha yalla yàlla ñu si yàlla musal musal si bépp doomi aadama yàlla fi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin